La liberté n'a pas de prix et c'est pour elle que l'on crie. Libérer les innocents, c'est éviter le bain de sang. yow lépp xañ nañ mu xañ sañ sañ a kàddu dañ ñuy dem bay dund tey li taxoon démb maam bañ ñu waroon àtte di jeng jaay doole ni fàng te mbugal ay jaam di dem di dund si yaa ñu ne si jeel bi yërmande ak yoonu suulu fenn yokk vitesse seen yore bi bon tax fees te bis ak si biis yi li ñu junj doy na si xel justice pour ñëpp looloy dëgg mais dëgg ji dañu ko dëpp dañu ko fëgg ay benn jeel ak lif di foowe dund ñu xiif xaju teeya yi lif génn xeex révolution jëli ko siif pour mu jeex one nation benn gis-gis fàtte leen Moktar lay doy Mouhamed Bachir Fall waa Yoff na mën nañ leen freedom freedom freedom président justice bi sa foo kaay doom ñi nga teg te delloo kor bi carton du sa kingdom justice bi jaarul yoon moom dëkkee def diis indi xeex jàmm jeex tere tuuru diis yaa ngi ma def mba am war ko def mu wóor ma wax mu door Fight for your freedom. Fight for your freedom. yee asalaamaaleykum wa rahmatullah wa ñu ngi ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen ziar di leen màggal di leen ndamoo di leen tiitaroo di leen béggee bu wér eh, di leen wax eh, bone heureuse année deux mille vingt quatre gajoon nañ fi loolu donc eh, bokk na ci ak feet yi ñu xawoon a occupé wul si amoon ay gan yu fi jaaroon tamit aussi ñu xawoon a jàpp trop quoi. mais yaakaar naa ni suñu xel yeeg suñu xalaat yeeg lépp musul sori Sénégal suñu waxtaan yëpp Sénégal la te it suñu bët yi ñu ngi ko ak suñu xel ñi ngi bàyyi woon bu baax xel li nga xam ne mooy daw Sénégal ci pion yu gars yi di pousse ak di placer parce que aussi vous n'êtes pas sans savoir ko bari na fi li nga xam ne yéen a ngi koy dund solo soxlawul ngeen di sori da di dem rek. xool li ma doon wax di gis lu bari lu fi am loo xam ni tënkoon naa ko bu yàgg teg romb lu ma wax nag lu ma gëm la te li ma gëm ala kulliyaal loolu day am sauf bu sénégalais yi jógee xeex ko dëpp kart gi walla ñu changer yoon bi mais sinon lépp lu ma wax day am ak ku mun a doon nag dossier bu ma mën a dugg bu ndee la majoor ak la ma cay wax bañ balaa kenn di ko xam tey la feeñ yaakaar naa ñu bëri war nañoo rus man bu fekkoon ay nit dañuy déglu li may wax après weddi ko gis la ma wax wala lu ko gën a pire ñu ci bari sama buntu kër la ñuy taxaw kon boobaa di ran kon sénégalais ay millions la ñu mat par jour ñëw di ran di fëgg buntu bi naan moo laa baal ñu àq ci loolu la ñuy dëkk parce que <laughs> damay wax lu jiitu seen juddu wala loo xam ne mënuñu ko maîtriser wala xamuñu ko sax wala dañuy dund mais mënuñu seen xel mënu fa yegg bokk na ci mbirum Ndella Madior lépp résumé naa ko ba bërki démb gis ngeen ñi jàpp gardien am ak ak ak ki nga xam ne moom moo jënd benn doom de à six cent mille te man waxoon naa leen ay koo xam ne dafa ëmb ni histoire boobu bu mel noonu expliqué naa ko ku ëmb ëmb bu tooy xepp jóge ci hôpital ba doomam dee mu bañ jëkkëram nangam ñu ñu def ko césarienne mu ñëw histoire boobu je l'ai raconté démb gis ngeen justice ba bu mu taxawee di juger maire boobu nga xam ni neewoon na dafa dem jënd doom bu mu ëmbee ëmb ba dellu euh, mu mu dem jëndi doom ci Ndella Madior Ndella Madior di ko laaj deux million finalement gardien baa ko jox doom à six cent mille yaakaar naa ni bu may wax loolu du tey donc a euh, euh, à à soixante six cent cinquante mille voilà donc loolu euh, yëpp bu ma koy wax du tey donc euh, man bàyyiwuma xel sénégalais liñ may jugé li may bàyyi xel mooy li may wax xam naa ni nit du ko dindi loolu moom lu ma maîtriser la nag lu may wax nit du ko dindi nit du ko dindi non gisuma ko dañuy metti metti dinañ mer nag seen xol yi di bon ñuy soxor kii mais ay ay ay information yu fiable laa yor ay information yu fiable yoo xam du ko jaay dama koy maye laa yor ak xeex bu précis maîtriser li may wax dem au fond au charbon lijjanti mbir ñëw jox sénégalais yi li ci des ni koy jugé ñoo xam ay de toute façon chaque fois yàlla dina ma jox raison si seen kaw chaque fois ak ku ma mun a xeex nag yaa am gàcce wax man yàlla man lay may dëgg ndax amul soldat bu ko gën a dëggu soldaaru yàlla bu gën a dëggu bu nekk fii di xeex bu ma gën a dëggu amul soldaaru yàlla laa la wax nag waxuma soldaaru ñu wut seen poos waxuma soldaaru ñu wut ay vie waxuma soldaaru ñu wut leneen dama ne soldaaru yàlla koo xam day def te yàlla rek tax wuti ci fukki dërëm gisuma kenn koo xam ni fii yaa ngi dox Sénégal koo xam yaa ma gën a bëgg Sénégal wala da ngay xeex ngir leneen man li may xeex yàlla rek moo tax di ko xeex pour la Sénégalais maa ngi ñëwaat encore di wax nag li ma gis ba ba léegi maa ngi ne tekk tekkaaral ça presque trois semaines waxuma maa ngi ne tekk di déglu sénégalais yi di leen yër di leen bàyyi xel di bàyyi xel conseil constitutionnel ci ni ñuy liggéeyee am na loo xam ne rek war na mun a yëkkati ku nekk ci yéen war ko bàyyi loo xel ci li ñuy gars yi di pexe ñaari candidat yi muy candidat Pastef li tax sénégalais yi jóg di xeex boobu ba léegi depuis deux mille vingt et un ñii la Ousmane Sonko la. wala Jomaay Fay maanaam waa Pastef Macky Sall bëgg a éliminer waa Pastef ci caaxaan naxa sa mais nag très stratégiquement la leen bëgg a éliminer systématiquement et stratégiquement lu ma leen yàgg a wax te ñi ngi ba léegi bàyyiwul fa mu taxaw ba léegi bàyyiwu ko chaque jour nag sénégalais yi dañuy nekk dans l' émotionnel mais man bu ma ñëwee damay mbéj seen xel yi ne leen bàyyi leen li ngeen di def te ngeen concentré ma papa yi raay mbelle man damay mbéj doom tël yawul mu ne xuj xoolal faire face à la réalité mu ne xuj xool réalité bi ma ko lii la man du ma bàyyi buy raay doom raay mbelle déedéet damay mbéj tël nga yeewu sa xel mi comme da ngay nelaw amati na nag ña ci seen i pexe ña ngay éliminer ñaari candidats yi jom kan lañ commencé woon fan lañ commencé tàmbale ñi ñëw indi l'affaire Barthélemy Diaz sénégalais di rey seen bopp ci Barthélemy Diaz lu ma leen waxoon arrêté leen di wax ci waxu Barthélemy Diaz taxu leen a jóg Barthélemy Diaz c'est juste l'arbre qui cache la forêt procès Ousmane Sonko mambay ñaa bi la ñuy indi ñu xam ne mënuñu ko retourner ñu ñu indi leen bu Barthélemy Diaz en attendant ñu nalawal leen diversion fowee leen mbejoon naa fi xelu yi ci loolu ci mbirum Barthélemy Diaz ana Bart ana waxu Barthélemy Diaz noppiwu leen ci chaque jour nguur gi jàpp leen di leen pamte pamte may xeex ak yéen parce que ay doom yu dëgër bopp lañ yor Sénégal dafa am ay doom yu dëgër bopp da ngay xeex ak ñoom bu leen yërëm parce que lu ñu bëgg a dégg loolu du dëgg ay fan lañu bëgg a dégg man may mbéj seen maam di xar ñoom di jaayanteeg ñoom parce que man ak ñoom dañoo bokk te bu ko ma seetaan ñee di leen fooye ana l'affaire Barthélémy Diaz kon tout ce temps ngeen ci ratatatate bu ma ñëwee di xeex ak bàyyi leen waa ji bàyyi leen waa kii dañ koy fowee kii dañ ko utiliser du dara ana la fa Barthélemy kan moo ci waxati jeex na Barthélemy Dias dañ ko ne ñoom ñi ngi def seen def ndekete loolu lépp di woon Barthélemy Dias taxu leen a jóg dañoo ñëw bugg indi procès Mame Mbaye Niang bi Ousmane Sonko cour suprême mais mënuñu ñëw rek song ko parce que l'affaire Barthélemy Dias est pendante ñu ne xaarañu dóor Barthélemy Dias nalawal sénégalais comme ay dof lañ ay dof lañ dañ leen di mbéj rek mbéj seen xel yi ñu ñëw dugal Barthélemy Diaz roof tàngoor sénégalais yi ñuy ratatati ñu ñëw indil leen tey calmement tey ñu ngi jugé Ousmane Sonko calmement Barthélemy Diaz sax bu Barthélemy Diaz sax moo gën a siiw bu ba ñuy werante ci bopp Barthélemy Diaz sax moo gën a siiw ci bu Ousmane Sonko ndax lépp stratégie la nguuru stratégique lañ yoro ay bandi lañ yoo xam ni nu ñuy foyee sénégalais yi nu ñuy poussé pion yi ñoom dañ il faut sa bopp nga am ingénieur yi il faut yàlla may la xel juróom-ñaari xel pour nga mun a comprendre ñoom seen mariage nu ñuy battre carte yi. boobu ñuy xool nan la ñuy mën a éliminer usman Sonko pour une bonne fois mu jeex tàkk ñoom ñu ngi lu ñu wax ci Barthélemy Dias waxuñu ko ci l' affaire Ousmane Sonko Ousmane Sonko ngi noonu ñuy indi l' affaire Barthélemy l' affaire Mame Mbaye di ko teg mais mënuñu ko mënuñu tëb bu Barthélemy ñu indi leen foowukaay foowee leen. peuple boo xam ne da ngay xeex ak ñoom rek ci xeex rek nga dëkk ak ñoom da leen di xeexal di xeex ak ñoom xeexal di xeex ak ñoom donc ñi nga xam ne dañoo bugg a dëggal affaire parrainage yi danaa leen xamal dara parrainage yi dara dëgguwu ci amul fiabilité pour ñi dof yi ñi nga xam ne dañuy jëm dañ leen di gëmloo ay parrainage bii ngeen di seetaan nii xaw ma dañ koy seetaan xaw ma dañ koy déglu amul benn fiabilité parenage bi c'est un choix ñoom ñooy toog def li ñuy def kenn ci yéen mënul vérifier exactement lii la dañuy fenn seen choix la ñoom ñooy xool lu leen neex ñu bàyyi ñii dugal ñii ay fenkat lañ laa la wax parrainage bi mafia la amul lu fa fiable du machine ba du tous lépp ay jeu di nax sénégalais bu leen wóoroon ni parenage bi baax na lan moo tax Amadou Ba demul moom mi amoon trois millions de parrain te leen ko Amadou Ba fi génnoon ne am na quatre millions de parrain lan moo tax moom demul yóbbul parrain ana ana parrain mi kon ñoom parrainage boobu noonu ñoom ñu doon def ñoom di dajaleel Amadou Ba Amadou Ba daanaka dajaleel nañ ko dix mille dajaleel nañ ko six mille dajaleel nañ ko trente mille ana ñooñu lan moo tax ñëwuñu bu leen wóoroon ni parrainage bi fiable na kay ñoom ñoo koy jiitu parce que yow boo tegee ab parenage teg sa machine teg sa fichier teg lépp xanaa bu dee yow wóor na la lii lii lu baax la yow yaa ci war a jiitu mais ñoom jiituwuñ ci <laughs> la moo tax à la dernière minute dañ ko lem ba mu roo daw ñëwuñu ci parrainage bi Amadou baax ay seen député yi ñoom ñoo ko kii kon kay ñoom mënoon nañ ko wax gars yi lu tax ñu doon sonn noonu di wër rek taxawaaloo ba seen taat yi tàng pour parrainer benn nit kese ñoom wóoroon na leen ne duñ ñëw parrainage kay bu leen wóoroon ni ñoom parrainage bi lu wóor la lu fiable la kon Amadou Ba dina ñëw indi 3 millions de de parrain parrain yi c'est que ni ni ñuy foowee sénégalais daf ma méttee métti métti métti boo xam ni mënu ko sax comprendre am alxuraan ni système bi jàppee sénégalais yi jàppee leen ay dof amuñu cër ci ñoom respecté wuñ leen jàppee leen ay mala di jouer ci seen maañ di ping pong ci seen xel. bu wax Ousmane Sonko ci benn marathon judiciaire boo xam ni ba suñu jonn yàlla tey sénégalais dañ cee waxa waxa waxa waxa waxa ba tas ma ne dugal nañ leen fu garaaw système bu ñu leen dugal doo leen fa amee ndam doo leen fa amee ndam bu ngeen seetaanee bañ bu wax leen ci euh, trajectoire bu mel ni marathon judiciaire rek du dugal fa Ousmane Sonko rek ngeen pare ca la jeexee ca la wax dee jeexee ñu ñëw di ko escalier judiciairement affaire Mame Mbaye Niang affaire Adji Sarr tëg tëg tëg l' affaire nekk ci ay affaire boobu ba léegi ci ay affaire la ne ak bu mu génnee deux mille vingt et un ba léegi Sonko ci ay affaire la ne ba ci kaso ba la mujjee affaire ñu koy affaire affaire affaire affaire affaire affaire affaire affaire affaire ñu topp ci nag di leen gëm loo gëm leen justice bi gëm leen justice bi respecté gëm leen justice bi te ñoom sax respecté wuñ justice bi ndax justice bi joxe na fi ñaari yoon verdict nangul ko Ousmane Sonko ñoom ci benn yoon amul benn yoon bu ñu respecté justice di leen forceresse à la loi forceresse à la justice di leen fooye bu max fa Ousmane Sonko ci marathon judiciaire boo xam ba suñ jonn yàlla tey Ousmane Sonko ngi ci kaso ba mi ngi ci marathon judiciaire bi gars yaa ngi nii di compter parrainage ñu ngi nii di compter seen i parrainage ñoom di leen indil ay candidat fantôme ay candidat fantôme di leen ko tegal ngeen ne Diomaye bi nga xam ni Sénégalais yëpp a gis ñëpp ñoo gis Sénégal yëpp génn ci mbedd mi di pare ne Diomaye fay ñëpp gis ko Diomaye fay am ni parrainage bay maye ñu ñëw ne la Diomaye fay am na douze mille cinq cent presque parrain yoo xam ni dañ ko ne ñoo ñu bokkuñ sax ci fichier électoral bi ay waay <laughs> sénégalais yi bu ko gobee donc dañu bëgg wax naa daal waa Pastef bi daal ay mandikat lañ daal ñoom dañoo toog rek di bind du leen neex ay Ngoy Njaay Paate Diop Issa Ndiaye joxe numéro carte yoo xam ni ñooñu ñu sax ci fichier bi maanaam daal waa Pastef daal ñoom bu ñu paree ne ci mbedd bi dañoo tux yamba naan sangara di di pare ne ku leen ay dof lañ daal ay dof xam nga douze mille douze mille presque douze mille cinq cent nit yoo xam ni ñoom dañu bëgg a gëmloo ni ñooñu noonu ñu doon bind ay ay nit yu leen neex la bind daal ay carte d'identité yàgg ay nit yi dee ay nit yu nekk ci fichier bi ay nit yu nangam donc maanaam daal kon waa Pastef daal dañoo wër di taxawaalu di wëndaalu di dajal ay nit yu dee ay nit yu ñuy yu faatu ay nit yuñ fàtte ay nit yu amatul sax quarante ay nit yu nekk ci fiche nekkuñu <laughs> ñu bëgg ko gëmloo sénégalais quoi ñoom ñu taxaw ne douze mille cinq cent sénégalais yu yu waa Pastef dugal ci fichier bi ñu dugal ci parrainage bi am bokkuñ sax ci fichier électoral bi ay waay sa explication nag sans comme comme sénégalais càpp yaasin ah sans explication jël douze mille cinq cent parrainage euh, Diomaye Faye tuur ci mbalit bi ne ko ñii ñii ñii yow sa gars yi yow est ce que toxuñu woon yàmba est ce que waa Pastef naan woon sàngara yow ñii nii ñii nii ñëpp kii daa dee kii daa kii daa kii daa maxe kii kii Fatou Ndeye kii kii Modou Demba amul euh, Pate Ndiaye euh, kooku bokk ci fichier bi ñu jëm douze mille cinq cent te yëkkati mbalit bi sorti <laughs> ne ko wutil quatre mille <laughs> waay wutil quatre wutil quatre mille quatre millions yoo xam ne mu war ko tasaare ci biir région yi mu war ko wuti ci biir région yi quoi noonu ñu fooyee sénégalais yi non sénégalais yi ñoo bàyyee seen bopp dañoo bàyyee seen bopp ñoom moo tax Macky Sall nag ne leen xaaral ma profité nag ñii bàyyee nañ ma seen bopp xaaral ma diri leen yóbbu leen ca mboy ga comme nañ ma seen bopp ñoom nee nañ <laughs> amul benn problème diri ñu yóbbu rek mu ngi diri di yóbbu rek kon Diomaye Faye waa Louga li ñu dajale nest pa pas waa Louga lu ñu dajale Abbas di wër suba ba guddi Abbas boobu kon ñu dajale loolu yëpp daal yi nga dajale lépp bay may ay parrainage kon loolu yëpp du tus daal kon loolu daal du dara daal am na douze mille yoo xam ne ay nit yu faatu ngeen dajale ay douze mille xam ne ay nit yoo xam ne bokkuñu sax kenn xamu leen ngeen doon wut ay tur ak i sant di dajale rek quoi di foo yéen rek lañ ko fi defal yéen kese manque de respect nag bu ñu am manqué ci yéen boobu ba léegi ñi ngi rakale ay nit waxuñu ci kenn ne dajale nga ay nit yoo xam ni existé wuñ sax wala ay nit yoo xam ni bokkuñu ci fichier électoral bi nuñ leen yawee lépp nag nag bukk bi yabee gaynde ca doxin bala doxin bi ngeen doxee moo baaxut moo tax Macky Sall mujj leen a yab am na jamono ju ñu Macky Sall yabul léegi dañoo mujjee dox ay doxinu góor jigéen waa ji xool ñu xam ni yii bukki bi yabee gaynde ca doxin bala doxin bi doxinu góor jigéen la xaaral ma rof tàngoor bu dugal depuis boobu la ñu Macky Sall yab parce que après dañoo mujjee changé doxalin changé doxin mu bumax ñu ci marathon judiciaire dof yi génn nañ topp justice bi nañ topp justice bi am na justice bi lu mu leen jox lan la ci Macky Sall accepté ban ndam ngeen am ci justice bi boobu ba léegi lépp Macky Sall la nañ topp justice mu bu wax leen ci justice ba marathon ba ba léegi tey seen leader mi ngi ci kaso ba Diomaye Faye a ngi ci kaso ba ñu ngi dàqanteeg justice bi tërr tërr ba bay mbëkk miir tërr mbëkk miir delluwaat tërr tërr nañ topp justice bi nañ topp justice bi nañ waa ji bu max faalewul justice bi ba léegi ñu ngi ci nañ topp justice bi da nga leen xool yërëm leen barke alxuraan Sénégal du changé de dama xool xool xam ne ñii non lii du dem lii du dem lii du dem gisuma lu koy yóbbu gisuma luy yóbbu ñii dafa saaga ñëpp lañ saaga ndey muy eh, Abbas boobu Ndiaye ñëpp lañ saaga seen ndey waa Pastef fi taxawoon ci mbedd yi dajaloo di rang di bind eh, ñoom rek lañ gis ñu ñu bare ne leen te ñoom seen seen waa ji dof demul sax d'office Pastef kese lañ gis ci ci ci terrain bi ñu ne seen waa ji am na douze mille mandikat yu ñu for dugal leen ci parrainage te bokkuñ sax ci fichier bi ñu ne leen ah ñu ne waaw waa ji manqué na 4000 yu mu war a wër ci région yi te waa am na bay maye <laughs> te jomaay fay lañ fi gis ñu dajale parrainage bay maye dajale dajale dajale ba naan doy na doy na doy na di maye ñaata lañ may ñaata ñaata ñoo xam ne nangul nañ leen te dañ leen a may wax leen ma ñaata sénégalais. ngeen lañ nangul ci parrainage yi yoo xam ne Diomaye Faye leen may ay waay yow nga may yow nga may yow Boubacar Camara kenn musul gis benn sénégalais bu taxaw naan day ne Boubacar Camara te matal na bu yàgg dafa ñëw rek matal ñu ne ñan ñu ne waa Pastef foo ko may Déthié Fall ñu ne matal na moom gis nañ ko bu début bi ba léegi ma nga ma nga ca teera ba di boppam Cheikh Bamba Dièye ñu ñu ñu ñu ko may ay candidat fantôme Daouda Ndiaye kuy Daouda Ndiaye léegi Daouda Ndiaye moom moom da matal na Daouda da <laughs> kuy Daouda Ndiaye wax leen ma kuy Daouda Ndiaye un candidat fantôme kan moo mus a gis kuy parrainé Daouda Ndiaye man Daouda Ndiaye démb laa koy démb laa yëg ni am na nit bu tudd Daouda Ndiaye buy wut parrain bu bu bu am parrainage <laughs> dama toog may ma ne ma Macky Sall mi ngi choisir ay candidat am moom ci yàlla ma ngay choisir ay am moom Daouda Ndiaye réussir na Diomaye Faye di dàqante <laughs> loolu foo ko déggee sax sa xel war ne da kuy Daouda Ndiaye wax leen ma kuy Daouda Ndiaye man kii bu ma koy war a rëbb sax du ma ko gis parce que dama xamu kenn xamu ko kenn kuy Daouda Ndiaye kon Daouda Ndiaye matal na nii quoi kan moo mës a gis nit bu yor ab feuille ne Daouda Ndiaye lay wutal parrainage kan moo ko mës a ku ko gis ma jox la un million ku mës a daje nit bu tudd nit bu naan day wutal Daouda Ndiaye parrainage na la benn nit génne ne moom dafa parrainel da Ndiaye Sénégal kaay leen ñëw leen woo leen ma sénégalais ñëw leen ñëw leen indil leen leen ma na ma kenn wax benn sénégalais bu mun a waat ci yàlla kaamil wala bible ne moom mus na mus na pare ne ba Daouda Ndiaye ñu indil leen Daouda Ndiaye tagal leen ne Daouda Ndiaye mooy matal dañoo ko <laughs> merci parce que Daouda Ndiaye c'est le mari de la femme qui a condamné Ousmane Sonko qui condamné Ousmane Sonko jëkkëram mooy Daouda Ndiaye mu ngi roof Daouda Ndiaye waxuma Anta Anta moom waxoon naa leen ne day dem bu yàgg seetaankatu samay live yi seetaankatu samay live yi waxoon naa leen Anta Babacar Ngom dem na bu yàgg réussir na parrainage bu yàgg kenn compté wu ko loolu moom war leen jaaxal bu dee ñu may seetaan la ngeen bu yàgg ngeen ma seetaan nee naa leen Anta Babacar dem na d'office mi ngi si sama live yàgg na boobu parrainage amagut parce que Anta Babacar Ngom papam doomu nday Macky Sall la gaa yi nam la dañuy waxtaan def seen affaire anta anta seen la seen seen doom la anta a été choisi depuis ko waxee du tey donc anta newul débat tey tegul leen bu baax anta moom waxoon naa ko yàgg na <laughs> ne la anta day dem par force kenn mënul téye anta anta turam dem na bu yàgg waaye léegi Daouda Ndiaye xamu leen ko kenn mësul gis ku parrainé Daouda Ndiaye léegi Daouda Ndiaye moom matal na d'office léegi le candidat de Ousmane Sonko ñu ne dañ koy suufeel ko ñu ne dañu wane ne Ousmane Sonko daal amu fi sax baat déjà ñu ngi commencé travailler sénégalais yi ci xel wax leen ne Ousmane Sonko même bu joxoñee nit sax taxul nit bi dem te sénégalais bàyyiwuñu xel ci loolu ñu ngi préparer sénégalais yi a jàpp leen ni Ousmane Sonko bu waxee nit demal sax taxul matal bu ko sénégalais nangoo nii suma élection yi. Ousmane Sonko joxañtal ñu dëgg wëndeel ne ko pour pourtant waxoon na fii Diomaye Faye te Diomaye Faye nangamul te Diomaye Faye dama gulle ñu ngi leen di naxaat naa leen na Diomaye Faye wuti 4000 <laughs> dam leen ñëw dam leen ñëw maa leen di mayaat beneen chance dam leen ñëw di ngeen fi dajale 8000 teg ñu génne waat 8000 yi ñu génne leen ci 3742 ne leen waa ñii baax na ñi ne ñëpp ñii doublon la ñii kii faatu na kii nangam la ils sont très dugg dugg ngeen ak ñoom yéen a dugg nag yéen a dox ba dugg ci seen i yéen a dox ba dugg seen kër jën bu génnee ndoxam dina doxam yéen a dox ba dugg seen kër yi jën bee lappi-lappi ba génn géej ga ñu ñu fiirir ko ndox mu ngeen xam ndox ngeen miin ku leen fekk ci ndox ma ngeen ñuus ko da ngeen a génn ndox ma nag léegi nag yéen a nga dem naan da ngeen wuti 4000 hee hee nee nañ 4000 daa yomb ak yomb ci bët mais ñi ñi ngi leen di xaar ñoom di ngeen wuti quatre mille quatre mille ya ngeen indi leen huit mille gis nga nu leen def nii lañ leen di defar ne leen quatre mille yi ok loolu la léegi ñaata ngeen indi huit mille tak tak tak tak compté dans ko indi ngeen indi ko ñu leen waaw kay trois mille sept cent yu jege mille nag trois mille sept cent quatre vingt quatorze yi baax nañ yeneen yi ay doublon lañ yeneen yi waxoon nañ leen ñii ñëpp dañoo dee ñii dañoo faatu ñii bokkuñ ci fichier bi tañ ci Diomaye fay au lieu ñu ko yóbbu ay affaire yu jugé nañ ko àtte nañ ko deuxième tranche première tranche lañ ko éliminer loolu lañ leen nar a def nag mais nag fu ne nii am na dof yoo xam ne ña ngay dem toppaat nañ affaire nan 4 millions yomb na ah ci jóg leen jóg leen focus 4 millions indi leen ñu 4 millions <laughs> indi leen 4 mille indi leen 10 mille sax indi leen 10 mille ni def nii lañ leen di defaat da ngeen a dajale bay bëgg a dee wër mbedd mi tàng waa Cees jóg waa Kaolack waa Dakar waa Diourbel Sénégal yépp jóg parrainer Diomaye ñi ñëw ne leen matul jël douze mille cinq cent tëmbal ci mbalit ma ñuy waxate ñu ne leen manqué ngeen quatre mille di ngeen indiwaat douze mille ñu ne leen deux mille cinq cent yee baax wala trois mille yee baax yeneen yëpp ay doublon la ak ay nit yu bokk ci fichier génne facilement ngeen toog nag téyeen joy naa ne ah, ndeysaan ah, ñu ne ñu ne xalam demoon na bay neex buum ko dog ñu ne leen xalam demoon na bay neex buum ko dog noonu la lay mujjee nga xam ne nag dañ leen di éliminer calmement calmement voilà ils vont vous éliminer calmement très calmement et très disciplinairement systématiquement sans ngeen bouger sans ngeen bouger d'un iota parce qu'ils ñii du ñuy ngaaka du ñuy ngaaka du ñuy dof ñii du ñuy dof ay bandi lañ ay bandi yu bëgg a seen pouvoir lañ yu bugg a maintenir seen pouvoir lañ ñu dugal leen nag ci ay ay système yoo xam ni sa waay doo leen fa am dara li ngeen fi dajale lépp man dama leen xool rek yërëm leen ndeysaan billaahi non bu ma xoolee gis benn Abass Boubou Ndiaye nekk Louga lekkul naanul génn yor ay fichier yu bari di bind waaye kay eh, gars yi waa Pastef fi di di di photo gars yi di vidéo gars bind rang maire di bind eh, waaye ñu ne non non ana parrainage Pastef kese fi ne ci mbedd mi Pastef kese Pastef fa dajale lépp laa ilaha illallah ba ngeen di maye ngeen dajale bay maye ñu ne leen matalu leen <laughs> da dajale bay maye lu Pastef dajale bay maye bay maye naan waaw ay eh, eh, eh, Cheikh Tidiane jox leen ko ci jox leen ko ci gars yi jox ci Cheikh Tidiane Dièye jox leen ci kii jox leen ci nàngam gars yi joxe joxe ba naaw ñëw ñëw ñi benn moment rek tak tak ay waay kon Boubacar Camara moom day dem na nii d'office Boubacar Camara kon Boubacar Camara non gars yi dañu yëpp kon Ousmane Sonko bi Diomaye Diomaye Faye bi ko jox joxoñ moom mënul dem sax premier tour ay Boubacar Camara dem Boubacar Camara bi nga xam ne Ousmane Sonko joxuñu ko moom dem na. Déthié Fall moom dem na Cheikh Tidiane Dièye moom dem na ñii ñu <laughs> kon ñii ñoo mun Diomaye quoi ñii ñoo mun candidat bu Ousmane Sonko ko mun. candidat bu Ousmane Sonko joxoñ ñii ñoo ko mun ah je vous pose une question candidat bu Ousmane Sonko joxoñ bu Ousmane Sonko joxoñ Sénégal yëpp joxoñ ko Boubacar Camara moo ko mun Déthié Fall moo ko mun Cheikh Tidiane Dièye bi dem d'office moo ko mun. Daouda Ndiaye candidat fantôme moo ko mun ah Anta Babacar Ngom <laughs> non gars yi yab nañ sa yab nañ waa Pastef fi nag c'est fini ñii dootuñ bàyyeeti gars war nañ leen de war nañ leen mbaam de sëf nañ leen bu yàgg boo war leen mbaam lonk leen buum rek ngarab di faaj ji dem rek dootuñ leen bàyyeeti kon Anta Babacar Ngom daal moom mu Anta Babacar Ngom ah d'accord moom moo mun moom moo mun Diomaye Faye quoi kon Anta Babacar Ngom dajale na fi loo xam ne d'office neen dix régions yëpp la réussir lay <laughs> lay la examen boo xam ni Diomaye fay sëgg ci gars yi job ko job bu rafet boo xam ni calcul bu ñu teg ñu dóor ko rak tak tak tak tak njëkk a joxe feuille Anta Babacar Ngom te taxawaal fii ñu dóor lacrymogène fee ay filmam ñu ne réseau yëpp loo wax matière boo Anta Babacar Ngom am na ci dix sur dix mathématique Anta Babacar Ngom 10 sur 10 mooy région yi nee nañ région yëpp la am région yëpp 10 sur 10 <laughs> lu lu lu lu lu candidat wu Sonko mënul am Anta Babacar Ngom am na ko région yëpp 10 sur 10 Anta Babacar Ngom ay waay <laughs> gars yi ñoo yëpp sénégalais yi nu ñuy fawee sénégalais moo métti nu ñuy fawee sénégalais ñeneen ñëpp nag ñooñu ñooñu euh, dañ leen a jël ci député yi Sonko nekk gu fi de léegi kaa ñu liir amul benn élément Sonko bu fi nekkagum les candidats yi ñu retenir fu mu nekk nii Boubacar Camara Déthié Fall Cheikh Tidiane Dièye Daouda Ndiaye Karim Wade bi nga xam ni moom ci député yi lañ ko jëlee Habib Sy ci député yi la Anta ba Babacar Ngom ñu ne 100 pour cent la gagné Khalifa Sall ca député ya Amadou Ba ca député ya donc parrainage bi maanaam ñi ñi fi réussir gum parrainage matuñ sax cinq ñi fi réussir agum parrainage bi matuñ sax cinq nañ nañ ko xool Boubacar Camara la te te tollul ci wee Boubacar Camara tollul ci wee Jomaay Fay tollul ci suuf tëstan tànk tollu fa Sonko moom dem na Déthié Fall tollul ci wee Sonko et eh, Jomaay eh, Fay buñ booloo tollu leen Cheikh Tidiane Dieye bi ngeen xam yéen a ko may parrainage yéen yéen sénégalais yéen a boole waa Pastef booloo may Cheikh Tidiane Dieye parrainage mu dem direct jamaay fay demut xanaa loolu kuy nit war na ko toog xalaat ni lii <laughs> ay caaxaani kese la caaxaani kese Daouda Ndiaye bu benn nit génnul fii Sénégal ne pare na naa ko moom dem na direct kon fii trois à part à part Boubacar Camara Déthié Fall Cheikh Tidiane Dièye Daouda Ndiaye ñeneen ñëpp ak Anta Babacar Ngom cinq lañ ñeneen ñëpp député la Karim Wade député la Khalifa Sall député la Amadou Ba député la léegi Ousmane Sonko moo ci des lu tax dugaluñ fi turam <laughs> ñeneen dañuy xaar ña ngay xaar Ousmane Sonko fële ay waaye ndaw réew mi neex ak alxuraan réew mi moo neex quoi nii lañ nar def quoi après na leen indi leen 4000 ñu ñëw à la dernière 4000 dans 48 heures. ngeen ñëw indi dix mille ñu génne waat ñu def lu ñu defoon dëgg wëndeel bu ñu defoon génne ne leen trois mille sept cent yee baax lépp tuur ci mbalit ba ngeen toog di leen xooli bët naan nii ñu organiser ñu er- après ñu dem deuxième conséquence na ñëwaat nag choisiraat yi ña mu jël ne kii national nationalité la am kee dafa am problème justice kee nanga di éliminer nag ñu choisir ñoom seen i nit waaw ah, Daouda Ndiaye fantôme la tudd di <laughs> sa kenn xamu ko am na ku génne léegi benn jaabaraton bu génn léegi ne ne Daouda Ndiaye pourtant euh, liggéeykat la mais liggéeykat boo xam ni euh, euh, ci suuf la nekk di ko def calmement mooy fantôme rek loolooy fantôme loolu mooy fantôme fantôme boo xam ne mooy koo xam ne daal nee nga yow liggéeykat la liggéeykat boo xam ni ci suuf la ko def kenn xamu kooku ci suuf la koy def ci suuf kenn xamu ko mais booy def ci suuf sax am na ñu lay xam <laughs> mais yow yow ci suuf nga mës a liggéey yoo nga ne da ngay liggéeyal Sénégal ci suuf nga ko liggéeyal sa dund yëpp ci suuf ko liggéeyal kenn xamu kenn kenn xamu la yow daa xam ne ñi sa jabar moo fi jugé Ousmane Sonko euh, condamné ko loolu dañ lañ xam ci yow kenn xamul la ci liggéey même ci suuf booy def ci suuf sax dinañ la xam xanaa ñi ngay defal ci suuf dinañ la xam ñi ngay defal ci suuf sax au moins ñu ne <laughs> kii kat di ñu ñu xam la daa doon jaay fantôme léegi nag ñun nii la ñuy ko quoi ñu jël candidat bu Ousmane Sonko joxoñ Sonko Sonko léegi nag ñu bëgg a def benn genre comme nu ko di préparer sénégalais à ce que même bu Ousmane Sonko joxoñee nit sax bu gañewul amul par parce que joxoñ na fi sax candidat am te candidat am amul parrainage loolu lañ nekk di liggéey nii de lu leen ma bu baax nag li may wax dama ne dañoo nekk di travailler sénégalais ci seen xel di leen gëmloo ni candidat bu Ousmane Sonko joxoñ taxul mu gañee ci loolu lañ leen di préparer nii candidat bu Ousmane Sonko joxoñ taxul mu gañee munul sax dem parrainage premier tour ci kanamu ñoom Anta Babacar Ngom ñoom ñooy réussir moom d'office moom mu dem euh, second tour pour jéem a dàqante ay points yu mottale tey na ngeen déglu bu baax nag quatre mille yooyu du ay da ngay indi quatre mille parrainage de région bu nekk dañ lay wax lu nga manqué le région bu nekk dañ lay wax lu nga manqué le léegi nga war a dem ci région ya nga manqué le quatre mille war a ko mottali région yi déglu leen de région yi nga manqué dañu leen ne Dakar manqué la nga fa mille ne la Gosaas ne la Diourbel manqué la nga fa quatre cent ne la Kaolack manqué la nga fa deux cent léegi nag région yooyu nga war a dem nag nga xam ni fekk nga gars yi pare nañ ñu bëri bëri bëri bëri doublon yi nga fay fekk nag doublon yi moment bi bu ñu la waxee demal mottali ci région yi foo foo jëm demal mottali ci région yi foo jëm ñu ci bëri ci ñuy wax dem leen mottali dañ leen di rakkale quatre-vingt-dix-neuf pour cent yi dañ leen dem parce que région yi lay wax noonu da dem fekk fa gars yi parrainé nañ feres ñu war a parrainé ña fa yor ay quarante te parrainé wuñ bëriwuñ te boo deful nag ay doublon nga fay foraat ay doublon nga fay foraat ma ne la ñi ñu wax naan dem leen wutiwaat seen parrainage ñëw quatre-vingt-dix-neuf pour cent noté leen bu baax quatre-vingt-dix-neuf pour cent dañ leen di bloqué benn ci jàll walla ñaar benn moo ci jàll wala ñaar ñi ci des bi dañ leen di bloqué parce que de fa ñu leen waxee fa ngeen manqué ne fa ngeen koy wutijee sa waaye docteur yi bëri nañ Sénégal nag il est docteur pas politique docteur yi moom bëri nañ Sénégal moom ñun man sama gars yi ma doon ànd ay docteur lañ mujjee doon dem nañ université jàng fa am doctorat boo amee doctorat rek docteur nga vraiment sénégalais yi dañ des fois dañu bëgg a dofloo ñenn ñi yenn sénégalais yi quoi di dox ci boo amee doctorat rek doctor nga vraiment balaa maa day ñëw docteur nangam docteur nangam docteur docteur waaye bu la ñu sanal docteur mooy doctorat doctorat mooy docteur. docteur boo ko joxee doc ku naan docteur boo ko joxee piqûre mun na laa sénégalais docteur dañoo jàpp ne mooy jàng jot ay diplôme doctorat la am doctorat rek la am donc doctorat docteur point ñun tam ñu dofloo sénégalais quoi bëgg extraordinariser les affaires docteur nangam boo ko joxee piqûre mu mu lafin loola comme sénégalais loolu lañ xam ci docteur boo ko joxee piqûre mu la fay loola doctorat la am di docteur point du du du jinne du malaaka yor bopp bu kenn amul ni ngeen di doflooyee sénégalais yi ngeen di arrêté ni ngeen bëgg a jàppee sénégalais yi ngeen di arrêté ngeen respecté leen docteur mooy doctorat licence maîtrise doctorat ay diplôme yi kese yaa gi ngeen dofloo sénégalais ci ay waxi naxas a xandang ay wax yu amul tekkiwul sarab maamam fii docteur yaa ngi fes dal ci Canada gi di dox ñu am doctorat ñu ngi dox fes dal ci kara Canada gi immeuble bi boo génnee am na trente docteur ñu am ay doctorat dof yi sax am nañ doctorat sax nga docteur la woon docteur doctorat docteur docteur docteur docteur docteur Ndiaye docteur Diop doc du ñu tous doctorat la ñu am du ñu fukki dërëm dañu war a respecter sénégalais yi respecter leen sénégalais yi du ñuy dof du ñuy dof ñun dañu ñuy respecter donc di wax sénégalais yi réveillez-vous ñu ngi ñuy bëgg a encore fooye conseil constitutionnel c'est des bandits c'est des voyous ay paa yu màgget lañ ay doome xat lañ yu toog di caaxaanee sénégalais yi bu benn sénégalais accepté bu benn sénégalais bu benn sénégalais accepté loolu bu dee Diomaye Faye am validé nañ ko dans les neuf régions mu war a wut cent quatre-vingt-douze notel de quatre mille cent quatre-vingt-douze même bu ko indee déglul bu baax li may wax Abbas indee boo leen toogee nii di xoole ñu tegu ko wëndeel di ngeen ko indil huit mille Abbas jàppal ni douze mille cinq cent indi nga ko ñu sotti ko ci mbalit mi yow rek lañ ko def yow waa Pastef rek lañ ko def léegi laa te lu tax loolu lan nga def yow ba indi lu tey ni cinq cent euh, parrain ñu xëpp ko ci mbalit bi loo def loo def kon yow daal yaa dajale dof yi yaa dajale ñu bokkul ci fichier yi yaa dajale ñu dee ñi candidat yëpp yow yaa ci mandé sa carrière daal yow yaa dajale ñu dee yaa dajale ñu dee bu yàgg yaa dajale ay néew yow yaa dajale ay ñu ñu ñu ñu dof ñoo xam ne après dañoo dof ñu bokkuñu ci fichier yi yow yaa dajale ñi nga xam ni ay carte d'identité yu yàgg ya lañu yor carte d'identité basang ya yow yaa dajale ay nit yu existé wul yu bokku ci fichier électoral ba yow rek lañ ko jiiñ jiiñ ñu ko benn candidat xanaa loolu war ngaa taxaw xoolaat sa bopp ne mais kii yab na ma rek lañ ko jiiñ rek loo def daf la bëgg a wax ne yow dof nga ndax yow wéroo daal yow da ngay dajale ñu dee dajale ñu dof dajale ñu bokkul ci fichier bi dajale yow yow rek lañ ko def yow rek tëgg la wëndeel noonu caaxaan ci caaxaan après di la dàqanteloo encore nga war a wuti quatre mille et quelque dama dama ñëw dama ñëw kon dañu bugg a wax ne daal yéen yéen Abass daal kon yow Abass yow Abass yow yow yow say maas dañ leen di yóbbu ñun ñun dañ leen di àtte te leen a jox sañu parrainage ngeen dem jël ngeen dem rempliral ñu ay nit yi dee rempliral ñu ay ñu dof ñu tàggoog seen sago rempliral ñu ay ñu yore ay euh, carte d'identité basang yéen yéen après ñu ngi leen lijjanteeg yéen boo leen accepté lii mooy wane ni yéen yéen a ñu yàq yéen a ñu dem indil ay nit yu dee dugalal ñu ko yu bokkul ci fichier bi yéen a ñu indil ay nit yu dof yu perte seen sago après. bokku ci fichier yéen ñu indil ay nit yu ngeen bind yoo xam ne ay bokkuñu sax amuñu sax carte d'identité da ngeen choisir leen neex yéen a ñu indil ay nit yoo xam ni ay carte d'identité basang lañ yoroon loolu lañ leen bëgg a wax. kon yéen sañu leader yi nag ci région yi loolu ngeen def quoi douze mille douze mille cinq cent sa waay du caaxaan yéen bu boo doon war na accepter lii vous allez affaire à nous boo leen accepter nii lii yéen a ko def kon ñoom li ñu leen di yéen ko def. bu boobaa nag ñu ne yéen ñu ñu ñu ñooy mujjee nag ñu àtte ñu kon li leen jiñ yéen a ko def yéen ñi nekk leader yi li leen jiñ yéen la dañ leen woo ngeen ñëw wax ñu ba xam yen li leen conseil constitutionnel jiñ yéen a ko def yéen a ñëw yor seen feuille di ci remplir ay nit yi dee di ci remplir ay nit yu faatu fa yàllaaw bu yàgg di ci remplir ay nit yu amul carte d'identité di ci remplir ay nit yoo xam ni dof nañ ba ñu leen voilà Abbas nee na non on n'acceptera pas defuñu ko du ñun ils ont dégagé les responsabilités parce que ñoom Abbas tamit du ñuy dof ay borom bopp lañ de du ñuy dofa ah. conseil constitutionnel daf ñuy yàpp ay magum jëm am xel am bopp nit ñi bëgg a gëmloo ni ñun jël nañ douze mille nit yu bokkul ci fichier électoral bi remplir leen noonu ko pour feesal ak suñuy fëy lii du respe du cër ñii ku ñuusul seen maam da leen rek ñii ñii du cër gars yi dañu manqué respect barke alxuraan dañu manqué respect kon candidat yi fi nekk yëpp parrainage yi ñu ñoo fi def lu kenn defut nit yi ci jàll bu yàmbalang laa la wax ay daaw da njaay di jàll ay antangom di jàll ay xur dabb xuusmaa ñàpp yi di jàll naan bi nga xam ne sonk moo ko joxoñ moom mënu sax jàll ma nga ca bunt ba di naan nii te te da doon maye te da doon maye candidat war naa mun a war nañ ko mun a téye Idrissa sekk boo ko téye ñu ne waaw Idrissa Seck safu day lay xeeñ Idrissa Seck ñu ñu téye ñëpp nag sañoo nañ ko waxante de nañ nañ ko waxte dee rek nañ téye ñëpp moom vraiment ñooñu ñëpp vraiment nag c'est normal nag voilà c'est normal dof bii tamit sama suñu suñu waa ji moom ay ay ree la ma def moom moom beneen monde la nekk coon ñaa waxoon naa ko ko <laughs> xamul xamul xeetu silibam quoi coon ña moom duma ci sax débat moom moom <laughs> coon ñaa ndeysaan dañ ko dofloo quoi Sénégal mais dafa mun a fen lii lépp moo ko indil boppam dafa mun a fen nañ ma mottali trente million amuñu trente million suba ma bàyyi génnaa na mat na sëkk <laughs> ci laa xam ne booy bi dafa gëj kaw la quoi gis nga ko boo bàyyee say nit da dem ci ay ñoo xam ni xamuñu la démb ak bërki démb dañ lay jay parce que xamuñu la da ngay doon star seen kanam son ñaa amul kenn ku mu àndal ku ko xamoon démb amul kenn ku ko wër ku ko xamoon démb dégg ñu mu dajale ni mooy booy town ngaaka yi nga xam ne ñu ngi doog ko jóg Toña bu ñëwee jóge Kaolack tey dóor kos karawaat rek dóor ay dàllam soulier roof ci kii rek euh, euh, siras ko mu tàng rek oh Toña l'intellectuel Toña l'américain Toña l'australien mu naa waay have a dream have a dream one day I will be the president <laughs> amul kenn ku ko xam ku ko jege donc dafa dem town jàpp ngaaka ya kepp leen noq leen ci roof leen ñu ne kaana la man kaana lillaahi buñ ne man kaana lillaahi bu ne kaana lawuloo kaana lawuloo ñu bu fu coon ñaar romb rek booy taaw nii nga xam ni ay complexe lañ génn man kaana lillaahi bu kaana lawuloo amul benn kawlokaa bu mu àndal parce que ñëpp xam nañ bu doon man la kii tey xam naa ko ñoo doon nekk tóoro di mbëkkante foofu noonu matina hip hop ñoo doon nekk VLC muy ànd ak waa DP yeeg yooyu nekk seen booy bu doon man la tey dama koy wax raay ma nekk nekkal nit booy bërkaati démb fii sa yaay ak sa baay ngi fi Kaolack nga dem après jàng bi metti ci yow Kaolack ñu yóbbu la Blaise Diagne nga dem fa commencé bokk club anglais kutu kutu dugal ay visa mu dëgër ngay ñëw Kaolack après ci nga dem Amérique barkaat démb nga ñëw tey bëgg naan mu I have a dream one day man ma coon buñ fi sax nekk ay président coon booy jéemal xool noo dem doon opérateur économique jéemal xool noo nangam bu doon tey man la wala benn Pascal Seck bi mu doon àndal wala benn kilifa ñun tey wax nañ ko raay parce que xam nañ ko démb ak bërki démb joom coon joom mënuñu quoi mënuñu gis ci coon dara lu dul ku ñu xam ci démb ak bërki démb mais bu duggee Dakar nag Dakar nga dof yaa fa nekk nag <laughs> xam nga complexe booy taan complexe yi nga xam ne buñ gisee nga sol kos karawaat dóor benn pins fii wala ñu ne kaana la yàlla nag boo ci bu bu bul dóor boo dóorul ñaari angale nag toon nga xam dafa yàgg a rêvé angale bañ na ko ba Lycée Blaise Diagne nekk na ba président euh, club anglais Lycée <laughs> Blaise Diagne ba muy duggee foofu club président club anglais fa la da ko gëmoon da ko bëggoon rêvam yëpp mooy dem Amérique gars yi dañoo xamul coon ñaar rêvam yëpp coon bu toogoon ak Amérique la lay wax Amérique non c'est c'est kaana ba damay dugg kaana ba kaana ba damay dugg kaana ba moo tax bu mu duggee ñëw di leen làkki anglais dof yi nga xam ne xamuñu ko donc moo tax lii man bettu ma bettu ma bettu ma de déedéet ku bàyyi sa ànd ànd boo dem fekk fa borom dafa man de carrière am booy boobu waroon dem lijjanti boppam doon opérateur économique doon la na muy dof dof la ñëw ñu dugal ci bopp bi ay ay mbir yoo xam ne ay coon peut devenir président coon peut yow coon ba bu may dund ci kaw suuf doo doon président ba bu may dund ci kaw suuf maa la doo doon président doo doon président bés bu ngay dem ci élection man mii damay dem ci élection bës bu ngay tegu tànk ci élection da ngay jàll parrainage ma jàll parrainage ma ak yow bu boobaa la ñuy xool ku mën boobaa doo ko xëccoo Sonko de man nga koy xëccool man booy bustaan yow booy ginnaaw ginnaaw es ginnaaw esat Lamine Gueye ca tan ba man ma dëkk bustaan ca tan ba yow nga dëkk ginnaaw esat Lamine Gueye Lamine Gueye bu kaw la ca tan ba boobu man ak man a yow ci biir terrain bi ñu mbëkkante foofu xamante nañ mais pour les l'instant moom sincèrement dof yi nga kaaj kaañ kaañoo fii ak kaajee nga jàpp leen di leen fëgg yi wëndal booy taawul complexe yi nii non xoolal du jàll du jàll malgré que amul benn fiabilité ci parrainage mais yow yow sa sa dernier kii yëfu dof nga fa def yëfu dof sa dernier info munoo sax wax à dernier dernière minute nga ñëw génn lëndi nga génn ne buñ matalul parrainage buñ mardi buñ matalul buñ ko buñ cotisé wul matal trente millions ma bàyyi mardi bi nga ñëw ne mat na sëkk <laughs> te kenn gisul fundraise kenn gisul fu nga fu ñuy fu ñuy cotisé pour yow kenn gis un franc nga tourné rek na mat na cela ne oh, oh, oh booy bi jikko ba génn na nag jikko ba génn na waxoon naa ko nee na duur rek lay def booy coon duur rek lay def yàgg naa ko wax jikko ba génn na fa la ko sénégalais yi comprendre nag te pourtant yàgg naa ko wax ne neen coon nii xam naa ko de ñoo na ko doon kaw la di ko bëri de duur rek lay def duur rek duur rek lay def booy bi fen rek lay def ak di gëmloo nit yi lu amul fen rek ñaari voyage yu Macky Sall dem yëpp yóbbu na ko di ko di ko di ko may xaalis yii six cent millions lii nangam ñaari voyage yëpp Washington coon ñaa ànd nag Macky Sall New York bii passé bëgg ay di ko yuuxoo coon ñaa ànd na ak Macky Sall yi yóbbu nañ opérateur économique yi nekk wër Macky Sall yanoo nañ ko bu présenté ko Macky Sall mu xam ñaa génn rek funki <laughs> ñu ne lañu defar seen benn réseau réseau euh, boo xam ne euh, coon ñaa ma nga ci biir ñaa nag kaay kaay dugg ci biir réseau bi ko quoi voilà oui yow coon jàpp ci jàppale coon kaay dugg ci réseau bi man leen réseau lan man man ci réseau man moo laa ci réseau réseau bu coon ñaan ne pour ñu ja yéen wér ah, ay lobby quoi kaa ñu créé lobby kaa ñu coon mi ngi ci biir nga ah, ma coon tant que coon nga fa man baax na lobby <laughs> bu pour mun a gérer Sénégal ba di teg ay nit formé nañ seen lobi boobu lobby ñaa mi ngi ci coon ñaa mi ngi ci lobby boobu de bu gars yi borom doole yi dajale nii teg ba mu dëgër këcc ñu ne léegi ñoom ñooy choisir président mu ne les faiseurs de président lobby boobu les faiseurs de président man moo contacté ca début ba contacté nañ ma woy kaay dañu am lobby bu ñuy daaf les faiseurs de roi faiseurs de roi sax faiseurs de roi au lieu président ñi faiseurs de roi ay lobby yi am gars yi am doole yi nekk ci système bi ci kaw ni dañuy choisir ay nit léegi ñu ne ñoom dañoo décidé choisir Amadou Ba coon ñaa nekk ci biir réseau ba génn di wax waxi tofaka def yëfu xam xam lépp wax lépp baaxul. donc cher sénégalais di leen xamal ni encore une fois refuser leen bañ leen toog na xujju conseil constitutionnel bëgg fi éliminer Ousmane Sonko ak ki nga xam ne mooy Jomaay Fay ñaar ñii kenn nekku ci ba suñ jonn yàlla tey Ousmane Sonko nekkul ci élection yi Jomaay Fay damul ci élection yi muy loo xam ne lu garaaw la lu ñu warul nangu parti yëpp am nañ au moins seen candidat bu fa dem sauf ñun sauf Pastef Pastef laa la wax l'ossature de Pastef amugul benn candidat bu dem ci élection yi waxuma nag ñu jafandu ci mbupp jàmbur yi man man waxuma ay waxu Habib Sy moom dama ko waxu Habib Sy moom waxuma ko foofu ànduma ci àndaanuma ci mais way buy këpp gaal kenn du ko way ci tefes way buy këpp gaal kenn ko way ci tefes même daal le faux on est unis mais man Habib Sy ànduma ci mais fa laa yem soriwuma ci à la place de Habib Sy c'était kii nga xam ne mooy bat kii lu mu tudd ji Guy Marius Sagna Guy Marius Sagna du moroomu ki nga xam ni moom mooy Habib Sy Guy Marius Sagna c'est un révolutionnaire un combattant connu par tous les Sénégalais qui a été musul bokk ci benn système Habib si maamu système bi la mag la ñooñ la ñuy xeex paa yi la ñuy xeex moroom Habib Sy yi ak maire yi la ñuy xeex Habib Sy ministre la Abdoulaye Wade yàgg fa nekk fa politique nekk PDS ma maxe transhumé dox dem soxlawuñu Habib Sy ñun foofu foofu c'était pas la place de Habib Sy mais nag sox man man ànduma ci Habib si kese waaye jegewuma ko sax bëgguma ko xaay dis fokk ñuy xeex ay système Habib Sy lu mu ku luy Habib Sy mais Habib Sy moom mooy Amadou Ba Habib Sy moom mooy Macky Sall Habib Sy c' est l'ami de Sall Habib Sy c' est l'ami Sall man maa leen ko wax takk leen téere c' est son ami intime barke alxuraan barke alxuraan Habib Sy est un ami à Macky Sall Habib Sy c' est un membre du système Habib Sy c' est PDS pire ay dëmm Guy Marius Sagna buubam sax moo gën Habib Sy buubu Guy Marius Sagna moo gën Habib Sy place de euh, Habib Sy c'était Guy Marius mooy ku sénégalais mënul fay gii Marius Sagna bu taxawoon fii mun na jël réew parce que xeexal na ku ne képp kuy gor Guy Marius Sagna xeexal na la fi xeexal na ku ne amul fàttewul nit fii ku fi mus sax xeex Guy Marius Sagna ñaata at la dugg ci kaso yi ka ko ci dundam lépp ci problème mu jàmbur yi la lépp ci problème mu jàmbur yi Guy Marius Sagna doxatam moo mun Habib Sy kuy Habib Sy kan mooy Habib Sy Habib Sy fan la Habib fan lay jaar fan lay jaar Habib fan lay jaar eh, Amadou Ba fan la bàyyi caaxaan Habib Sy Habib Sy daa tekki tous lan la fi def lu mu defal sénégalais wax leen ma lu Habib Sy defal sénégalais yi wax leen ma benn xeex bu Habib Sy nekk leader di ñu ko xeexal ñun sénégalais yi kan moo mës gis suñu xeex Habib Sy bu ñu bu ñu xeexal c'est-à-dire n'importe quoi Habib Sy boo xam ne nekk nga fi ministre mandé sa carré dara defoo ko ci jamonoy Ablaye Wade tous defoo ko fa dam ba màgget sax yi bijaaw ngeen war a retraité loo fiy def loo fi def la place de Guy Marius Sagna nekk suñu morom bëgg réew mi kan moo ko gën a nekk patriote kan moo gën a nekk Guy Marius Sagna souverainiste ban système la Guy mari Sagna mus faa dugg yàq fa ban alalu askan la Guy Marius Sagna mus a téye ban Habib Seydou tous Habib Seydou tous man maa ko wax j'ai pas besoin a me renseigner je ne suis pas un fou je connais Habib Sy on a été là peut-être ni nga nekk booy juddu juddu tey man xam naa Habib Sy koy koy wax man ñun ñoo xeex Habib Sy xëy na yow tey nga ñëw ci combat ñun ñoo xeex Habib Sy ñun ñoo newoon ci terrain bi ñu dóor ñu ay balu ñu xeex Habib Sy ak gàngooram ñun ñoo xeex Habib Sy on connaît très bien Habib Sy boo demee ba gëstu Habib Sy ci ay dossier di nga comprendre kan mooy Habib Sy ay Habib Sy daa taq rëpp ci dossier askan wi taq ci rëpp la def laa la wax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 Il doit de l'argent aux, aux, aux, contribuables sénégalais. We fuck Habib Sy. yeewoo oh. fuck Habib Sy moom ak Macky ak Abdoulaye Wade ak ak Amadou Ba fuck dem all mother fuckers dëmm yooyu noonu nga xam ne ñoo toroxal Sénégal yoreel ko ay alalam Habib Sy n'est pas blanc comme neige dafa takk rip comme day ku déggul la neex rek nga dégagé ku déggul la neex rek tu dégage kenn du ma jël jël dëmm na di ko raxas naan ko kii du dëmm te lekk sama maam kenn du jël dëmm di ko raxas naan ma kii du dëmm du ma ko bàyyi sama kër moo lekkoon sama maam kenn mënu fii raxas dëmm ba indi ko ne ko kaay bàyyi ko mu fanaan sa kër maa lànk moo rey sama maam moo ko lekk dëmm la man Sonko laa gëm ak Jomaay Fay point Sonko laa gëm ak Jomaay Fay bu ñu mandé sañu carrière bu Sonko demul Jomaay Fay demul ku ma fi wax Abib Si danaa saaga sa nday ba ma indil ko nday ay licence de pêche yi indil ndayam dossier yu garaaw yu fi tëpp nday xaalisu réew mi di ngeen comprendre lépp dëgg la Abib Abib Si sama day sax a mun Abib Si à place de Abib Si c'était Guy Marius loolu amul kenn munu ko layal à la place de Habib si c'était Guy Marius Sagna loolu kenn munu ko layal il faut ngeen respecter suñu parents yi tamit juruñu ay dof ko respecter leen suñu parents yi juruñu ay dof suñu parents dañu téye jox ñu lekk jox ñu naan yóbbu ñu école ñu jàng voyager on a compris beaucoup de choses xam système bi donc bu da ngeen di respecter suñu parents yi quoi ñun tam ay suñu parents yi du ñu ay dof yu loo couple dof yu jur dof ko non. respecté leen suñu parents yi quand même on a vécu ici ay deret dafa tuuru ay bakkan rot ndax pour jële fi système bi ñoom Habib Sy Habib Sy munu fi kenn munu ko fi satal kenn xam nañ ko daf fi dóor alalu askan wi sàcc la def mi woon ci système bi mi woon ci nguur gi munoo xeex Habib Sy munoo munoo xeex euh, Khalifa Sall bàyyi Habib Sy il faut pas être hypocrite man a hypocrisie yooyu munuma ko munoo xeex Khalifa Sall bàyyi fi Habib Sy nga bëgg a tilimal Khalifa Sall bëgg a setal Habib Sy ay waay ndaw <laughs> xanaa sa ndey liggéeyul nga bëgg a setal Habib Sy tilimal Khalifa Sall xanaa sa ndey liggéeyul yow yow doo dëgguwoo boo ko defee dëgguwoo boo ko defee fankat nga boo ko defee naafiq nga Sénégal soxlawu la kenn mënu fi setal Habib Sy tilimal Khalifa Sall benn kese la mënu ko ko fariñ si yooyu la ay dëmm lañ des candidats fantôme Macky Sall di waajal ay mbiram di waajal système am di teg ay gars yi nga xam ne ils ont travaillé avec eux l'essentiel mooy fichier électoral bu kenn yorul à deux mois des élections fichier électoral kenn yorul bu kenn yorul ñoom rek ko ko yor ñoom kese partout Macky Sall moo yorul électoral bi conseil constitutionnel ñu ñu ne la douze mille cinq cent man dama ci yërëm sax ndeysaan dama ci yërëm euh, Khoureyssi Thiam moom laa gën a yërëm chert Khoureyssi Thiam laa gën a yërëm ci nit yi barke alxuraan dama ko yërëm xool nit ku nekk war ngaa mën a rus xool Khoureyssi Thiam Pastef mënuñu fay Khoureyssi Thiam te nekkul ci bureau yoru carte yorul carte carte Pastef Pastef mënuñu fay Khoureyssi Thiam il prend il il met des millions ci affaire yi Khoureyssi Thiam c'est un américain de nationalité américaine sénégalo-américaine basketteur international c'est le seul la seule personne bu engagé wu wane boppam nëbbu ko ay moromam yu newoon équipe nationale Sénégal kenn ñi mawu ko c'est la seule personne góor gi si moo ko fi doon jéem a daf fu dëmm di daante recruter ay nervi bu ma ci xëppee kaani la yem ba ba léegi kenn déggatu ko fa la jaaree waxoon naa ko ni màgget nga danga retraité sa yax doxatul bàyyil fenn dangaa dagg sa âge ba ma ko waxee ca la bàyyi basket ca la génn ci ay affaires yi boobu ngeen ko gëj a man sama wax day raisonné de du ma waxantu maa mujjee wax ci góor si jee ca la bàyyee basket waxoon naa ko mag nga dangaa dagg sa âge say jeune doxatut say yaram doxatut xoolal magum jëmm nga yaa mën nga jur ñooñu ca la xamee mu toog déglu li ma ko wax bàyyi na basket ca la retraité ca la bàyyee affaire nervi ca la génnee ci wax ja ci lañ ko fàtte ma bàyyi ko ndànk maa mujjee wax ak moom mais ba ma ko waxee nag xam ne ni dof waxul ak moom toog na jël na temps ah boobu Tunkara dafa wax mu naan da kay porté plainte ba ma ca duggee la plainte ba jeex ba ma ci duggee la toog ba ma ci duggee la retraité ba ma ci duggee la génn ci nervi yi man ku ma yab rek damay nalaw nit bu ma yab damay nalaw bu may yaw di dëgg sa maam nit bu ma yabee rek damay nalaw bu may yaw di kii wax ci man wala di dof-dof la nii damay nalaw boo leen gisee ab dof bu bu bu yëngal réew mi rek jàppale ne moo laa ngi nalaw buy yaw waay dof bi nekk nit kuy yëngal réew mi damaa jugub bu muy jug di dëgg sa bu muy dëgg sa ngay nekk nii yam cot cot cot mu jub rangi jub rangi mu jub mu dox kon tey ji xoree si caam ku njara yërëm la bàyyi Amérique en tant que basketteur wane boppam taxaw Sonko di rey ci boppam jaay ci bakkanam jël ay billet di dagg di dem fu fu ñu wootee Pastef Khoureyssi Thiam ma nga fa ma nga Amérique ma nga Canada ma nga Japon ma nga Chine di wër gars yi affaire yi ñuy dajaloo noonu fundraising xaw ma fundraise xaw ma lan dajale jël xaalisam def ca Sénégal mu ñëw dajale ay équipe jox leen ay t-shirt jox leen ay yére jox leen ay pantalon jël ay oto def ci ñiy wër parrainage bi yëpp conséquence ne nee na douze mille cinq cent yi ngeen dajale yëpp ñooy bokkuñ sax ci fichier conseil conseil li ngeen fi coono yi ngeen def ñu ne yéen dajale ngeen douze mille cinq cent xure si conseil conseil nee na yéen dajale ngeen douze mille cinq cent doomu aadama yu bokk sax ci fichier bi yoo xam ne yoo xam ne daal kenn fu ngeen leen jëlee àll ak coono gu gu muy daj alal gum ciy def kenn du ko ci def te parti bi falu ko ci dara ñu gën a bëgg parti bi parti bi defu leen dara xure si ci amul un franc ba mu gañee ci parti bi du député du maire te lim ciy def sax ñiy gañe xaalis ci parti bi duñ ko def li xure si tam di liggéey ci parti Pastef bi ñi nekk député di fayee ko ay millions duñ ko def ci parti bi ñi parti bi tey def ba ñu doon dara di fayeeku ci parti bi sax duñ jël seen xaalis di ko def ñu xoolee si am di def ci parti bi mais ñooñu laa yërëm man ñooñu nga xam parti bi deful leen dara ñoom rek ay defar parti bi ñooñu laa yërëm ñiy rey seen bopp ci suuf amuñu un franc buñ gagné ci parti bi lu ñu am jox ko parti bi jënd ci ay billets dem sonn ci cotiser rey seen bopp man ñooñu laa yërëm et vous pensez que ça c'est normal nii lañuy bàyyi daal ngeen di dàqante au lieu ngeen régler déjà li nga xam ni moom moo nekk ñu expliquer leen mooy douze mille cinq cent yi wax ni bokkuñu ci fichier bi ñu génne ñan lañ parce que bu ma la joxee ne ma ñii ñëpp bokkuñu danga may jox tur yi danga may wax ñan la fichier électoral bi dama koy xam déjà nga wax ma ñi ci bokkul ma xool gis ñun fii sax fichier électoral bi fii c'est accessible à tout le monde en France fichier électoral bi c'est accessible à tout le monde mais lan moo tax si fichier électoral bi Macky rek moo ko yor ak partem ak conseil constitutionnel lan moo tax mais boo dem Mollah Morgun bokkul ci fichier électoral bi nga jox ma fichier électoral ma xool au moins vérifier mais amul vérification quoi ñoom ñii ñoom ñii ñëw ñi xanaa seen maam yi ñoo tabax Sénégal ay Macky Sall ak ay nitam ay conséquences ñoom ñoo xanaa seen ñoo tabax Sénégal ñun amuñu benn gëdd ak àq ak yelef ci Sénégal ndax boo nee nit nit bu dajale ay nit indi la douze mille cinq cent nga ni ñi ñëpp bokkuñu ci fichier mais jox ma fichier bi au moins ma vérifier. mais doo vérifier amul dara quoi yow comme sa nday moo tabax Sénégal yow du amul vérifier amul dara quoi da ngay ñëw indi mu këpp ko ci yalwaan këpp sa yalwaan na dara baaxu ci quoi yëpp am na ay tànn yëpp am na lii amul sax vérification amul yàpp même pas de vérification vous pensez que ça c'est normal am ay dof yi ñuy wax na ay dem leen dàqee ci 4 mille yi wuti leen 4 mille yi boo wutaatee 4 mille ñu fëgg la ñu la fëggee woon dama wuti 4 mille yi comme mbaam nga rek la teg nga tegu luñ la teg nga tegoo nga sañ di nangu te bégoo saa luñ la teg nga tegoo sañ di nangu te bégoo saa yoo liggéeyee indi ñu këpp ci yalwaan wi dak nga daan la damal wutiwaat ngay wutiwaat ko yow xanaa mbaam nga xanaa doo taxaw nday taxaw na ko hee hee danga may jox nday fichier bi moo xool nit yi ma fi indi yi nga ma wax ne douze mille nangam dafa bëri kaay ma vérifier ko dama koy vérifier aw ma fenn fu may wuti damay vérifier ndayam damay vérifier ndayam laa la wax douze mille du caaxaan douze mille cinq cent doomu aadama du caaxaan kenn du ko for nga ne ñii ñëpp bokkuñu ci fichier bi mosoo koo waxal kenn mën nga ko waxal dama koy vérifier amul balaa yoo dem ci beneen étape damay vérifier ndaayam wala fii dara du fi am au moins ñu xam ne am nga fulla ñu ne la xaaral ñu jox la nga dem vérifier ji boo vérifier gis ne douze mille cinq cent yëpp kenn newul ci fichier par fichier bi nga ne ah dëgg mais demal demal wuti dof ya kaa leen wuti waat kaa leen wuti waat quatre mille ñëwal ñëwal boo ñëwaatee ñu defaat la ni ñu la defoon ki la ko defoon mi ngi lay xaaraat boo indiwaatee mu defaat la ko doublon la ngay fëgg ay doublon def la lu mu lay def nga yaay ñàkk benn instant dafay toll foo xam ne gat sa gat sa la gat sa gat sa la xoolal ti fais le malin ma lijjanti ko quoi dañ dul dem ci deuxième étape du ma wëri dara da may jox nday douze mille yi ma wax ne douze mille cinq cent yi nga ma wax ne bokkuñu newuñu ci visite da nga ma koy jox ma vérifier yow yow xanaa yàlla nga taxawee yow yow da nga wax lan neex kenn du vérifier yow yaa choisir lan neex kenn du vérifier mais yow yaa kan yow yow xanaa sa ndey moo defar Sénégal xanaa waa conseil conseil seen ndey ñoo tabax Sénégal nañ ñu ko wax ñu génn réew mi bàyyi leen ko ndax seen ndeyee ko tabax ñun seen ndey defuñu dara kon ñun seen ndeyee tabax Sénégal ak Macky Sall ni da lay éliminer nii sans vérification ñëw taxaw wax rek même examen bac c'est vrai am na vérification mais bac boo nee sax da nga jox mu vérifier cinq cent yi bokk ñu kii demal nga wutiwaat am dof yi ne nañ ko ne wutiwaat balaa ngaa dem dañ lay jox boo amee d'office dañ lay jox boo amee orange sax dañ lay jox lii nga manqué le ak lii la nga gis say note nga gis say note jëlaat say note xam ne lii nga manqué lii nga manqué le nga manqué booy dem orange dañ lay jox say note quand même il faut vérifier mais ñoom dañ lay wax nii rek nga nga nga dem da ngay wuti waat dama la wuti 4000 nga ñëw. di nga xam ne ay doomi xaraam ñoo taxaw di la xaar dama wuti 4 000 ñëw dama wuti bu wut 4 000 de wutil 10 000 ñëw ñu ne la 3 000 yee baax dama wuti 10 000 nga ñëw ñu ne la 3 500 yee baax dañ la dem ba jege la affaire ne la 4 3 000 ne wala ñu ne la 4 000 xam nga da ngay wuti 4 200 ñoom 4 000 lañ la wax baax na ne la 4 000 yëpp doublon la boo baaxul nangam naa wax la waxi dof parce que yaa ko seetaan bul nangu ni jomaay dafa manqué le barki alxuraan jomaay matale na billaahi boo leen nangoo ni jomaay daa manqué le boo leen nangoo li ñu leen wax ne douze mille yi baaxuñu bokkuñu fichier bi boo leen nangoo naan da di wuti ci quatre mille yi billaahi di ngeen dugg ci loo xam ne di ngeen ko ruccu maa leen ko wax boo leen nangoo qui ne dit rien boo leen nangoo ne jomaay matul ba ngeen génnaat ci mbedd yi naan da di wuti ma xam ne yéen yéen ñi yéen ñu manqué ngeen yéen manqué la ngeen boo leen nangoo ni yéen joomaay matul ak li ngeen fa dajale lépp Sénégal fi ngeen nekk li ngeen wàcc yëpp ñu ne leen douze mille yi baaxul sans ñu jox leen ngeen vérifié ngeen nangu loolu ngeen nangu ne joomaay matalul te Anta Babacar Ngom matal na ngeen nangu ne joomaay matalewul te Daouda Ndiaye matale na <laughs> ma xam ni yéen Sonko amul ñu war a am kon man sincèrement ma xam ni Sonko non manqué na manqué na non jàmbaar yi dem nañ kon manqué léegi nag ma commencé ko gëm nee nañ jàmbaaru Sonko yi dem nañ Nicaragua bu yàgg nee nañ jàmbaaru Sonko yi daw nañ dem nañ jaar nañ ka gaal ga maa ngi koy commencé lii nag lii laay commencé commencé gëm nag ne lii nag lii nag lii xëy neexatul nag kon ñi mën nañ nangu li ngeen fi dajale lépp ñi leen jamaa matalul ngeen gëm ni jamaa matalul yéen ngeen gëm ko <laughs> te Anta Babacar Ngom matal la te jamaay matalul ñi leen daaw da njaay matal na ku kenn xamul daaw da njaay fantôme matal na te jamaay matalul Cheikh Tidiane Dieye matal na te Jomaay may ko Jomaay moo may Cheikh Tidiane Dieye moom matal na te Jomaay matalewul ñu ne leen douze mille cinq cent yi baaxul bokk ñu ci fichier bi ngeen nangu ko ngeen ne da ngeen wutiwaat quatre mille dem leen <laughs> ah non la may doog a xam ni nag sa waay jàmbaaru Sonko yee nag na Sonko muñ ta xam ne jàmbaaramee dem nañ jàmbaar ya ñii dee nañ ñii dem nañ jeex na kon jàmbaari Sonko yi dem nañ ñii ña nga Nicaragua ñii ñi nga ca gaal ga lañ yem ñenn ñi ngi ca kaso ba kon kon ma gëm ne nag sincèrement fii amatuñ luñ fi yaakaar luñ fi yaakaar di léegi wala ne wala waa Pastef ñoom dañuy xaar pour jafandu ci mbubu jàmbur ñu jàpp seen i éléments yëpp éliminé ñuy xaar ñuy jafandu ci mbubu jàmbur xanaa mbubu jàmbur la ñuy xaar grand mbubu jàmbur buñ jafandu to mu leen di diri xeex ba toll fii mujj nag di wër mbubu jàmbur bu ñuy jafandu ñun loolu lañ bëgg ñu jafandu ci mbubu jàmbur quoi pour mu dugal ñu àjjana suñu jëf bu ñu mayetul ñu dugg àjjana ñun léegi dañuy xaar jafandu ci mbubu jàmbur quoi garam mbubu jàmbur la ñuy jafandu pour mu dugal ñu àjjana nangu leen loolu man day ku ko nangu man nangu ma ko jomaay matale na sëkk barke Seydina Muhammad billahi na Sénégal yi refusé ne bu ñu nangu loolu saaga bu garaaw la am na lu nekk ci suuf lu ngeen xamul ubbi leen seen xel yi ubbi leen seen xel yi ubbi leen seen xel yi Ousmane Sonko moo yónni Jomaay Jomaay mooy Ousmane Sonko Ousmane Sonko mooy Jomaay Ousmane Sonko moo ne Jomaay ñëpp jóg pare na ko buñ ne matul ba ngeen nangu ko mooy wane ni kon Ousmane Sonko ay kàddoom sax taxul dara mat Ousmane Sonko kon suba bu waxee ni candidat bii la buñ ko dóoree bu leen bañ parce que am na fi sax choix wax ab nit pour mu dem munul matale sax parrainage dëgg leen lu ma leen wax bu baax waxumay waxu dof dama ne boo leen nangoo ni Ousmane Sonko joxoñ na Jomaay te Jomaay munul matal parrainage ils feront tout pour Jomaay bañ a matal ils feront tout pour Jomaay bañ a matal ils feront tout pour fexe ba Jomaay bañ a matal ñu gëmloo ci xelu Sénégal yi ne kon Ousmane mun naa joxoñ nit sax mu bañ a gañe Ousmane joxoñ na fi jomaay te munul sax dem amaral parrainage ñu fexe nu ko coincé retourné bu ëllëgee ngeen dem mu joxoñ keneen ñu tëgg ko wëndeel ñu ne ah lii bu mu leen bett Ousmane Sonko joxoñ na fi jomaay te jomaay amul parrainage kon kay bu joxoñee kii ñu doo ko ci élection bu mu leen bett préparé wu leen de Macky Sall bandi la de lu muy def yëpp yëfu saay-saay la ubbi leen seen xel yi parce que alxuraan boo leen nangoo lii dañuy tëgg wëndeel jomaay du dem ci parrainage yi quatre mille day ñëw ñu tëggaat ko wëndeel retourné bu boobaa ne nag Ousmane ko ku mu joxoñoon sax demut bu boobaa bu joxoñee keneen ca élection ya danañ ko tëggaat wëndeel danañ ko tëggaat wëndeel ne comme jomaay la mënul yóbbu mënu fi yóbbu keneen yeewu leen de yeewu leen de système la de nee naa leen ñi ngi éliminer gars yi systématiquement yeewu leen de billaahi boo leen demee ci seen i pexe di ngeen fa daanu boo leen génnee seen ànd boo leen wàccee seen ànd ànd boo leen dem fekk fa borom da ngeen foog ni ñi dañuy waxantu nii lépp ci jeu la lépp ci manipulation lépp ci préparer esprit sénégalais yi lépp ci préparer ay résultats préfabriqués la lépp ci hypothèque la yeewu leen lànk leen loolu bu leen leen fekk ci seen terrain bu leen dem ci seen i terrain bu leen dem ci seen i terrain comme ñi nga xam ne nee nañ dajale nañ fi cinq millions de parrainage ñoo ñimawul dem ci ay élect ñoo ñimawul dem ci parenage bu leen ko nangu de li may wax nag wax ju wax ju leer la luñ leen nëbb bëri na trop jotu leen ci fichier électoral tegu leen ci bët ñu ngi éliminer seen douze mille cinq cent nit sànni ko ci mbalit mi te nangu ñu leen jox ngeen vérifier ndax bëgguñu ngeen téye fichier électoral bi nga xam ne c'est caduc depuis deux 2017 la bëgguñu ngeen xool ko ba pare di leen wax leen ngeen wëri waat quatre mille ay waay gars yi fu ñu nar a dugal waa Pastef fii ba suñu jonn yàllay tey amul benn élément Pastef bu bokk Pastef bu jam jàllagum buy wane ni day dem ci élection ba suñu jonn yàllay tey ba suñu jonn yàllay tey amul benn nitu Pastef bu buy dem ba suñu jonn yàllay tey ba suñ jonn yàllay tey ba suñu jonn yàllay tey amul benn nit du Sonko du Jomaay Fay du Guy Marius du El kenn Pastef nekkagul ci élection yi benn nitu Pastef nekkagul ci élection yi dina am nag ñu leen di commencé di gëmloo nag di rey ay nit yu deewagut di rey Sonko te deewagut di rey Jomaay te deewagut di leen gëmloo ni ngeen commencé naa ay Cheikh Tidiane Dièye Cheikh Tidiane Baxataak seen Cheikh Tidiane ñandaxit yeewu leen ñi ngeen amal affaire ñoo leen ko gën a xam foofu bari na ñi fi nekk xamuñu dara ci gars yi ñu amal affaire amuñu information ci dara ñoom dañu li ñuy gis rek l'abstrait la lañuy jàpp ñun nag dañoo romb abstrait abstrait bi lañu romb ñun du ñu xool nii ñun ñu ngi ci ginnaaw xel yi di wax li ñuy wax dañ koy maîtriser xam ko ci ginnaaw xel yi lañ nekk nga ñuy déglu du yéen kese ba ci njiit yi dañuy déglu ba ci autorité yi ba ci palais ba ba ci ministère ba ci partout dañuy dégg xam nañ lu ñuy wax luñ maîtriser lañ xam nañ bu baax la ñuy wax li ñuy waajal ak pion ni ñu koy tegee lépp lañ leen di wax ñi ngi poussé seeni pion ñi ngi commencé di jox ci sénégalais yi ci seen i xel ba suñu jonn yàlla tey donc tey bu yemoon fii ñu def ay élection daraay Pastef du fa dem daraay Pastef du fa dem bu ñu fi yemoon bu fi yemoon tey tey tey tey ñu ne nañ choisir ñañ choisir benn nitu Pastef nekku ci benn nit bu Sonko nekku ci den Boubacar Camara du waa Pastef Déthié Fall du waa Pastef Cheikh Tidiane Dièye du waa Pastef Daouda Ndiaye du waa Pastef Karim Wade du waa Pastef Habib Sy du waa Pastef Anta Babacar Ngom du waa Pastef Khalifa Sall du waa Pastef Amadou Ba bu ñu yemoon fii ñi ñooy dem ci élection yi ana Sonko la def fii pour l'instant ah, gars yi lan la def ba nekkul fii kon Amadou moom moom dem na ba toog Khalifa Sall dem na ba toog Anta Babacar Ngom dem na ba toog ndem demaguñ de am desaat na de def desaan na beneen filtre desaan beneen filtre de mais ñuy dem nii Sonko fii place am dafa war a nekk Sonko deful lu tax nekkul ci place fii lu tax lu tax Sonko nekkul fii ah gars yi lu tax Sonko nekkul fii da Sonko nekkul fii d'accord yeewu leen rek ubbi leen seen xel yi ubbi leen seen xel yi lu tax Sonko nekkul fii Macky Sall la lépp Macky la ñii ñëpp on été choisis par Macky ñii ñëpp ba suñ joon yàlla tey ñii nii barki Seydina Mohamed bu ñu demee Amadou Ba <laughs> gars yi bu leen nangu lii ay Boubacar Camara ak Déthié Fall Cheikh Tidiane Dièye Daouda Ndiaye ay Karim Wade yi mun nañ filtre waat sànni fële filtre Khalifa Sall sànni fële ay Anta Babacar Ngom ay xuur dab ak yooyu yóbbu ko Amadou Ba ay waay ndaw yeewu leen daal loolu daal laa leen di wax leen liñ leen di teg lànk leen liñ leen di teg bañ leen liñ leen di teg loolu daal laa leen di wax lank leen liñ leen di teg bañ leen liñ leen di teg refuser c'est une injustice barki Seydina Mouhamed laa leen waatal billahi ki nga xam ni moom mooy Jomaay Fay matal na matal na Jomaay Fay matal na candidat matal na parrainage am Jomaay Fay mat sëkk bay maye bañ leen bañ leen lànk leen balaa ngeen di dem ci beneen étape laaj leen ni douze millions yi anañu ak lu tax bokkuñu ci fichier bi ñu jox leen fichier bi ngeen vérifier ngeen vérifier moom la laa wax pour l'instant amul découragé amul dara mais bu ñu nangu luñ ñi bëgg a teg li may wax leer na naa bu ñu nangu luñ ñuy bëgg a teg fi ñuy puus ñu fay dem nañ bañ nañ bañ gis nga bu ma dajalee li ma dajale lu sénégalais yi dajale ci jomaay fay tey man man laa tiital sauf jomaay fay ñëpp laa tiital sauf jomaay fay barke alxuraan adduna yëpp laa tiital soof jomaay fay man jàpp naa ne jomaay fay tey non comme Anta Babacar Ngom moo ñëw ne Vurux jàll man dama ne ah man sama boy bi bu mayee ne ma moo laa jógal jógal ma ne ko lan la mu ne ma jo nañ Diomaye Faye deuxième tour ma ne non mënul nekk mu ne ma ah, ma dama xool tiit ma tourné ne may Anta Babacar Ngom dem na di Diomaye Faye demul ay <laughs> li bu ko Sénégalais yi nangoo moom mooy première forfaiture première forfaiture yi moom Anta Babacar Ngom dem na d'office Diomaye fay dem oral non bu ko nangoo ma xam ne nag sa jeex na lambay ñaaw na bu sénégalais nangoo ñoom ci seen bopp yi ak li ñu def ñu gis terrain bi ñëpp a gis sénégalais yi waa Pastef remplir terrain yi matal parrainage yi indil ay centaine de milliers de parrainage bay maye ñu ne kooku matalu ko day dem second tour ñu ne ki nga xam ne moom mooy Anta Babacar Ngom dem na <laughs> non man non non moo bu ma ko xoolee laa ne ñii nag ñuus leen jot na nag ñii nag jot ñuus leen jot na ñuusante bi nag jot na nag tey nag la mbir ya mat kon ñii kon dañ nañ ñi ñii sénégalais yi kon ñii Pastef jël lañ douze mille cinq cent personnes yu existé wu dugal lañ ci ñu bokk ci fichier douze mille cinq cent ñuy waxati ñu ne Diomaye Faye ma maye woon moom moom sax matut ñu ne Anta Babacar Ngom mat na ay Daouda Diop Daouda da ak Fantôme mat na ñu non <laughs> am na caaxaan nag réew mi am na caaxaan diaspora bi nga xam ni quatre vingt dix pour cent parrainage yi quatre vingt dix pour cent parrainage yëpp jomaay fay lañ ko defal ñu ne kooku matul quoi <laughs> ñu ne jour yi ñu fi jël yëpp ci jomaay diaspora bi bind Canada France Amérique partout dans monde gars yi bind lépp ñu ne loolu matul quoi ñu ne sénégalais dem lay wuti waat <laughs> am yenn ñu seen nday liggéey ñu naan non nañu wuti ci 4000 nañu wuti ci 4000 <laughs> dem leen kon kon lu fi amoon yëpp ay film la quoi kon monde bi ñu feesal dell ay film la kon Europe bi nii parrainage Europe yëpp ay film la ñi millions sénégalais yu parrainé Diomaye Faye Europe yëpp ay film la millions sénégalais yu parrainé Diomaye Faye Amérique bi yëpp cinquante cinquante continent yëpp film la ay centaine de milliers de yu pare ne Diomaye Faye fii ci Canada yépp film la monde bi yépp ñu pare ne Diomaye fay lépp dara matut Sénégal nag rax ci dolli ñu pare ne pare ne ba sonn mat xanaa sa waay li ñu laaj Diomaye xanaa Europe ak Amérique ak Asie rek bu ñu dajalee mat na foofu doublon mënu fa am sa waay doublon Sénégal rek la mun a am ñun fii du ñuy dof quoi. Sénégal rek mu am ay nit yu yeewoogul ba léegi di dugg ci ay live wax waxi dof wax sans argument yooyu Sénégal la am mais gars yi nekk ci kaaw bi yeneen niveau la ñu am loolu ñëpp nangu nañ ko nit bu nekk kaaw moo gën a yeewu foofu nit bu nekk Sénégal quatre-vingt-dix pour cent ñëpp nag mais dama ne nit bu nekk kaaw moo ëpp chance yu yeewu que bu nekk Sénégal moo ko ëpp chance nekk bitim réew bitim réew rek laa wax yeewu moo ëpp foofu chance que nit bu nekk Sénégal mais nag du cela ne veut pas nit yi nekk Sénégal yeewuñ dama la bëgg wax ne chance bi chance yeewu pourcentage bi bi bitim réew lu ëppee que Sénégal kon bu am amee ay doublon loolu Sénégal la mais bitim réew fii nit du jël di benn benn waa du duñ duñ duñ duñ parrainé Diomaye ba pare dem di ko joxi keneen xanaa buñ dajalee parrainage yu Amérique Asie Europe Océanie rek loolu mun naa matal parrainage yu Diomaye <laughs> xanaa loolu rek war naa mun a matal parrainage Diomaye soxlawul ñuy jël bu Sénégal sax ñu ne kooku lu mu dajale lépp dara matu ci quoi na dem wuti ci moo tali <laughs> douze mille yi sax baaxut bokk ñu ci non <laughs> ah comme ñun waa ëxlu nangu lañu bokk xaaral ñu muñati rek sama gars yi nañ nangu nag ay ëxlu waa waa ëxlu nangu lañ amal affaire ëxlu nangu xam nga dañoo mujjee dem ba Pastef doon waa ëxlu nangu sañ ta bañ ku sañ a bañ rek sañ a nangu waa axlu nangu nañ demati léegi mu am ay marathonier ñu ñëwaat ne non nañ continuer nañ wuti quatre millions <laughs> marathonier yi <laughs> parce que dañoo bëri ay ñoo xam loolu lañ teg ñu tegu ne aja nañ continuer bum bum bum aja Sonko kii na ñun nañ nañ continuer ci kanam nañ jàppatu kanam gudd gudd gudd ñu bëgg euh, ñu yi ñu ngi ñëw aja wuti leen quatre millions wuti leen quatre ñu ngay ñëw de <laughs> ñoom lu ñëw ñu ànd ca ne nday marathonnier yi ndeysaan duñ sonn mukk ñoom dañuy tàq dañuy daw rek dañuy daw rek marathon ñoom ñëpp nga woon ci mara marathon judiciaire bi dañoo mujjee sonn nag marathon judiciaire ba bañ leen di escalier conseil constitutionnel conseil cour suprême teg non Sonko ñàkk na Ziguinchor Sonko am na Dakar Sonko ñàkk na Dakar Sonko ñàkk na am na ñàkk na am na ba tey ñu ngi fa ba tey ñu ngi fa <laughs> mooy mooy les marathonniers ba tey ñu ngi fa noo day dem noo du dem noo billaay day dem noo du dem noo day dem noo du noo dina dem gucc gucc gucc mooy marotañee yi parce que ak bëri marotañee dañuy wër dañuy daw rek day daw rek daw rek di daw to ñu nga ca marathon judiciaire ba ña nga ca marathon conseil cour suprême commencé na marathon yi conseil ma ngay marathon ñoom ña nga fële cour suprême ñoom nekkaat ci Sonko kan Sonko Adji Sarr après marathon yi dàqante nañ fu nekk nii ñi nga xaar résultat Sonko euh, kii nga xam ne moom mooy Barthélemy Dias lañ koy Sonko Barthélemy Dias ñu nga woon ca Barthélemy Dias ba fu nekk ni tey ñoom ñëpp a ngi xaar Sonko Mame Mbaye Niang suba ñu taw Sonko conseil constitutionnel euh, Diomaye Faye conseil mar bi ñuy daw rek dañuy daw rek ñëw dañuy daw duñ nga leen sànni ndox rek ñu tuuti ñu guux rek sànniwaat butéel ba di daw rek da marotañe yi les marotañe pastéfien ña ngay ña ngay wëri nee nañ dañuy wëri waat quatre mille de ñoom loo leen tegal rek lu luñ leen liggéey jox la rek nga këpp rek ñu topp ci c'est triste fii ñu Macky Sall yóbbu fi ñu Macky Sall situation yi ñu teg waruñu ko nangu billaahi waruñu ko nangu na Macky Sall sama gars yi ñaq bi warul warul neen ñaq day siit mais warul neen na ñu Macky Sall génneel la ñu jox fichier yi ñu vérifier douze mille cinq cent yi presque douze mille cinq cent yi yi mu wax ne bokk ñu ci fichier bi nañu jox ñu vérifier balaa ñoo dem yu wëri dara nañu jox ñu vérifier bu ñu vérifier ba pare ñun dañuy gisal suñu bopp ba dëgg la wala ay fen la un deux ñu wax ne ay doublon la nañ ko vérifier dañ koy vérifier balaa ñoo jàll ci leneen mais munuñu jël suñu yalwaan këpp nañu daqalante leen leneen bu boobaa buñ ko nangoo buñ ñëwaatee ñu tëgg ñu wëndeel nit ay bañ nit day bañ nit duñ ko teg mu tegu luñ ko teg luñ ko teg mu tegoo nit day lànk nit day bañ doomu adama bu dul bañ mala nga doomu aadama boo xam li ñu la teg nga tegoo toppat toppat mala nga nañu bañ nañu lànk ñu malétiser ñu bañ leen ñu malétiser leen lànk leen ñu leen di teg ngeen di tegoo lu leen neex di leen ko teg loo leen liggéey indi leen ñu këpp ko ne daw daw daw loo leen ngeen toppaat ci leneen lànk leen nit day bañ conseil constitutionnel yàlla new fa yeneen ti nekk fa Serigne Touba new fa Alaaji Malick new fa li limaam ay paay ñàkk fayda fa ne ay takkatu jila fa ne ay mafia fa ne ay bandi d'état ñoo fa ne di def leen neex na ngeen vérifier loolu laaj leen na du ñu wuti nday benn 4000 da ngeen ñuy jox 12000 yi ngeen wax ni bokkuñu ci ci fichier da duñu nangu loolu da ngeen ñuy jox ñu vérifier ñu ngeen wax ni bokkuñu ci fichier bi ñan lañ dañ koy vérifier balaa ñoo dem ci leneen wala fii sarab ndayam dara du fi am. ñoo leen gën a dakay sa ndayam foofu yéen ñun mën nañ toll ba jamono ji Sonko gisuñu ko ci affaire yi Diomaye fay gisuñu ko ñun xanaa ñun sañu nday baaxuñu ñoo ñuy taxaw de am na loo xam duñ ko nangu ku ko nangu nag yow la ay nit yuy dund comme ay mala lu ñu leen teg ñu tegoo toog nii ni ñëw ay doomi xaram taxaw di def leen neex toog di ngeen dajale ba sonn nekk ci naaj bi lekk lekku leen naanu leen dépensé si bay bëgg a dee Europe bi Europe bi pare na Diomaye Amérique pare na Diomaye Australie pare na Diomaye day la ñu ne matul kan kan moo mat la ñu ay Babacar Ndiaye ay xaw ma médecin xaw ma euh, safurlaa sax docteur Babacar Ndiaye docteur Bunzalaay nag ay Anta Babacar Ngom waaw boo leen ko nangoo loolu yéen la yéen boo leen ko nangoo loolu yéen la yéen boo leen nangoo yéen seen ñaq yi fi def yëpp doomi xaraam yi ñëw tax bugg leen këpp këpp ndaayam ci àll bi di leen teg lu ngeen tegoo loolu boo leen ko nangoo yéen leen yéen loolu yéen la loolu la yéen loolu ko loolu yéen la voilà amul feneen fu ñuy dem ñii dañu war a lijjanti seen nday lii dafa yomb ñii la ñuy def ba tëgg tëgg tëgg ñu wëndeel mandiloo suñ carrière lijjanti seen affaire sàcc ko dem dem seen yoon on on les a trop laissé faire dañuy ay yàlla lañ xanaa ñi xam ay yàlla lañ affaire yi dafa ëpp quoi maa yow dem sama yoon sax chaque jour nii la leen di teg rek di leen teg di leen teg di leen teg di leen teg di leen teg ay affaire di leen di luñ liggéey ñëw ñu foofu sànni ko luñ liggéey ñëw ñu sànni ko luñ liggéey ñëw ñu sànni ko luñ liggéey ñëw ay doomi xaram jël ko buub tout kon Pastef rek moo fi dajal ay ay douze mille personnes yoo xam ne newuñu ci fichier kon ñi fi jàll yëpp ñoom ñëpp ñoom ñëpp indi nañ ay tur yi nekk ci fichier Pastef kese moo ko fi def léegi loolu loolu ban explication ngeen ci am ana dëmm yi mun a expliquer ban explication ngeen ci am kaa leen expliquer ma Pastef moo fi def lu fi kenn deful moo fi dajalee douze mille cinq cent person yu bokkul ci ci fichier ah kan moom mu mun a expliquer loolu eh kan moom mu mun a expliquer loolu kon Boubacar Camara moom deful loolu kenn téyewu ko loolu Déthié Fall kenn téyewu ko loolu Cheikh Tidiane Dieye kenn téyewu ko loolu Daouda Ndiaye kenn téyewu ko loolu Anta Babacar Ngom kenn téyewu ko loolu ah Rose Wardini moom bi nga xam ne dañ ko téye sax moom téyewuñ ko loolu Idrissa Seck kenn téyewu ko loolu kenn dajalowul ci ay nit yoo xam ne bokkuñu ci fichier bi Pastef rek lañ ko fi wax Serigne bu kenn téyewu ko ci loolu Pape Djibril Fall kenn tuurul ay ay ay ay parrainage am ci mbalit parce que bokkuñ ci fichier alors Mamadou Dia kenn defu ko loolu defuñu ko Mamadou Lamine Diallo defuñu ko Malick Gakou defuñu ko Serigne Serigne Gueye Xoma defuñu ko Aly Ngouille Ndiaye defuñu ko Ndéné Ndiaye defuñu ko Idriss Seck defuñu ko El Hadj Moustapha Diouf mooy El Hadj Diouf defuñu ko Serigne Mbouk defuñu ko Pape Djibril Fall defuñu ko kenn def ko Pastef le Pastef daal moom mooy lan moom. moom daal la ñuy teg loolu teg dundul teg benn doomu aadama moom tey lépp lay nangu moom day nangu di daw rek kon ñi fi jaar ñëpp amul kenn ku dajale benn person sax bu bokk ci fichier sauf Pastef Pastef moo fi dajalee douze mille et quelque kon kay mat na jël nañ douze mille et quelque doomu aadama yu bokk ñu jël tour ci mbalit Pastef rek lañ ko def kese am marathoniens yi dina dàqante leen wuti quatre mille encore te ñi ñi mun nañ nangu nag je te ñi ñoo ñi nañ nangu nag ñii maa ngi doo gëm ni non ñii ñi ñi ñii ñi ñii beneen nit lañ waaw ñoo def sama yoon waaye neexul si xool sax kon ñu fi jaar ñëpp Pastef moo fi def kenn deful moom moo dajale ay douze mille quelques personne yu bokk ci fichier kenn duñ leen jox sax ñu vérifier ñu ngi leen di wax ay yenn marocains dàqante leen leen